sëriñ bi kii dafay laaj yenn xeeti idda moo am ci wàllum pase ak lan mooy euh, talaaqul baa in euh, idda day mooy jigéen ji jiñ fase mhm. mooy wuute benn muy jigéen ju toll ci gis baax suñ ko fasee ñetti baax ñetti laab lay toog mhm. maanaam li sunna ci fase mooy jigéen nga fase ko ci laab mhm. goo xam ne jotewoo jàng su ko defee laab googu bu jeexee ñu benn bu gis baax mhm. laabaat laab googu jeex mhm. mu ñaar mhm. mu gisaat baax mu jeex mu laab laab googu jeexee mu ñett ba mu gisaat beneen baax bu xasee gis baax rek dañu mat na loolu mooy jigéen joo xam dafa toll ci gis baax nga xam mm-hmm. ne kon du bu ndaw goo xam ne àggu ca mm-hmm. du mag mu ko weesu mm-hmm. kooku ñetti baax lay toog lu baaxee sore sore nag dafay toog xaar dafay toog baax yeexul waaye da koy xaar ak jigéen joo xam ne moom daa matagula gis baax xale wala da ko weesu ngir bu mag kooku ñetti weer lay daw ñetti weer ak nag jigéen ju tollu diggante kooku iddaa muy saa yu amee doom Mm-hmm. kon ñetti xeet idda yi ñoo am mm-hmm. bu doon uh, borom këram mu faatu nag mm-hmm. idda ja muy def mooy ñeenti weer a fukki fan law loolu moom uh, kii gis baax ak kii du gis baax bu dee ki kii tollu diggante kooku bu amee doom mooy doon iddaam moom yëpp kon ñetti xeet idda yooyu ñoo am idda yi yoo xam ne ay weer lay doon mhm. ak idda joo xam ne ay baax lay doon mhm. ay laab ak idda joo xam ne saa bu muccee ci amul mhm. bu dee feex nag ñaar doom yëpp kuy juddu idda ji dara ay feex doom yi xaw a soree ki juddu tey ki dem ba ëllëg wala ginnaaw ëllëg ñaari doom yëpp day juddu day ñaari lu ko ëpp bu dee talaaxul baa in nag talaaxit ñett la rajaan yi la muy fase moo xam ne nangu na fay li mm-hmm. ak fase moo xam ne nanguwut fay li waaye nangu na takkaat mm-hmm, mm-hmm. mu bàyyi ak fase moo xam ne nanguwut fay li nanguwut takkaat lu dul jigéen ñi daa jaar feneen moom la batt ku fase soxnaam menn fase yéene ca menn fase toftaloo ci meneen fii ak idda ci jeexut fasem pay la fasem pay li mooy loo xam ne saa yu neexee borom kër bi Mm-hmm. mu ne maa fase maa waxoon wax mm-hmm. waaw maa la fase woon génn nag foofu jërul ñuy laaj loolu jërul ñuy laaj baayam moom góor gi mbir mépp ci loxoom la ne léegi mm-hmm. léegi njuumte am façon am di ko faale ñu naan ko dañuy waxtaan nag faaw nga dem ci diwab mu ànd ca loolu lu amu ci ba tey jii soxnaa ma danaa miseere jërul dara ba tey jii may wax yow soxnaa la ndax ñu ñaar ko ci faatu woon sa morom doon la ok te la fii idda ji jeexut soxna si ba tey day def soxna góor gi bu amoon ñeenti soxna parce que ci kenn pasem payal mhm. buy daam jeexut mënut takk keneen ndax ba tey ñu ngay ñeent mhm, mhm, ci néegam ba mu nekkoon lay wéy dafa nekk mu di ko dundal bànnee ko daal la sëñ ci moom te moo ko xañ boppam saa yoo ko neexee mu ne maa waxoon génn naa génn naa ci bee pasem bàyyil nag nangu na takkaat waaye nanguwul fay li moom moom mooy fase moo xam ne fasem payal mi ñu waxoon ba yëg bi jeexee Mm-hmm. boo dëgg jeexee. waaw fu dëgg xasee jeexee rek. Mm-hmm. te fay li woo. soppali mm-hmm. ku nekk bàyyi. mooy bàyyi mooy boo bëggaatee dañuy dem ngoro jiwaat. joxe can. négocier ba njuboo nga doon safaat. takkaatoo waaye soxalu ak sëy di fa dox. bu dee pasem batta nag mooy boo xam ne moom ñàkk nga. <laughs> xanaa yàlla dogal mu jaar ci yeneen loxo kooku ñàkk bopp boo ci boo ci tabu soxna si. <laughs> nag jaar na lu mat a leeral. léeg-léeg bu yàggu rek nit laaj na ma ko ne mhm. ki nga xam ne daa fase soxnaam mel na fase wala ñaar mhm. xam fase mbàyyin la mhm. fase mbàyyin la ko fase ah. takkaat wala takka tukku ko far beneen borom kër jaar fa ba ko ko koocee mu takkaat ko ma ne ko ba tey bu ko takkaatee bu ko wàccee maanaam jaar gi fi borom kër jaar tekkiwul ne ñetti fase yi ba tey dañu leen boole Hmm. maanaam nit ki mën naa fase soxna benn yoon. Hmm. borom kër jaar mu takkaat. Hmm. bu fasee ñaar la. maanaam bu ñu layee ne jot naa jaar ci geneen borom kër kon day ñëwaat yor bu mu bees. ay suma jadida bala ko am mooy ñetti fase yi mat. mu sëyi feneen ba tas ci sëy bu tegu ci yoon. sëy bu tegu ci yoon laa du doon baara du baara yëgoo sëy bu tegu ci yoon boo xam ne nii góor gi day gis bëgg jafoor daf ñu may ko ñu jaxasoo it nag ñu basaa ñëw di ma laaj ne ma mhm. daa am ku mu bëgg delloo ka ko yoroon mhm. waaye euh, jigéen jaan nangu wutal jaar feneen bu mhm. ma laaj wax ndax mën nañ koo maye te du ko yëg wut génn góor rek ñaaxal ko may ko ko bu deew yàgg ñu fa ñu fa ma ne ko faaw ñu jaxasoo <laughs> léegi rek seet leen ngeen ko fexe ba mu jaxasoo te du ko yëg moom kon loolu ñu bàyyi ko xel loolu lépp lu ñu ci war a jàngee imam Xasan mooy parce ah. caaxaan jëmu ci ñoom dañuy foyee lu yóotu foyee. dëgg la. rawatina loo xam ne xam nga ne boo ko noppi booy noppi di kuutiwaat léeg-léeg ci saa see la nit ki fas si soxnaam di lay ay lay. dëgg la de. léeg la lay. Mm-hmm. kaf laa jubloo nag dama meroo nag. Mm-hmm. mer mi ñu naan bu ko fasee fase mu dog merum dog mooy ku dem ba dof mm-hmm. nga ne xam ne tu asmaanu suuf. foofu ñii yëpp kenn agu ji. ngay wax seen i soxla bu ñu maree naan buñ xiifee bu añ bu taajee ñu añ. ñooñu kon maanaam ay nit lañ. Mm-hmm. xaala boobu ku ci fase soxna donte da ngaa mer fase mu tabbi la mm-hmm. kaf jëmu ci bu mm-hmm. islam noonu na ñett seen jidd jidd la seen xas la jidd la fase ak sëy ci la bokk sëy kenn du kawe fase sax de xanaa sëñ balaa ci nit àgg xanaa war na am fu jaar xanaa ba xam nga nit ñi ñu mel nii rek ñaar yi fi day am nag jigéen ñi dañuy def lu ñu mënut léeg nit ne borom këram may ma sama baat mu ne ko may naa la ko mu yokku Ah, ñaan loo xam ne bëgg ko la ko may nag war naa mën naa na nii seen seenu doy bi ak seenu matat yi dañ lay wax ne man kenn du ma ñaan baat nga ci teg baat waaw oh. ku ñaan baat ak may la hmm. fekk ki ñaan hmm. ñàkk xam ak doy moo tax mu ñaan waaye li mu ñaan bokk li hmm. leen di dimbale li leen di dimbale taxaw leen jubbanti leen ba nga xam ne li ñuy wax waxuwut bi ci des it nag soxna boo ko amee góor gi na muñ ne soxna si muñ bis bu ñu waxee a tàggoo kenn xamut la ngay amaat dëgg la ku ci ne ci ñoom mën naa ma lu yées lu ma la moom su boobaa du muy def. Mm-hmm. kon nag nañ mun di jaamu ci yàlla. dëgg la dëgg la dañoo la. Mm-hmm. kenn ku la yàlla dafa yàlla dogal daa mel wax ne ba muy toll ci wut soxna. Mm-hmm. wala wut borom ko kam doon gént moom lay am. dëgg la yàllaay dogal rek yàllaay dogal rek bu daje. kon nag yàlla dogal daa bokk ci ponk gëm yàlla alimaana bil xadar. yàllaay dogal ni diw diw ñuy ànd mm-hmm. sëriñ mag bi radiyallahu daana wax ne mm-hmm. jigéen ñett lañ mm-hmm. koo xam ne yow la ko yàlla jagleel waaw keneen mënu cee jot ak koo xam ne yàlla keneen la ko jagleel mënoo fexe ba jot ak koo xam ne dañ ci am wàll kenn am ci wàll bu su wàllu jeexee faaw ma ñàkk ko ah loolu leer na kon daal euh, nit sañu ta takk nit ngir daganal ko euh, ci wàll googu noonu. waaw ah, loolu moom bu ko defee def lu dagan te tax mu dagan ko it. mu dagan ko waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. tax mu dagan ko it nag. Mm-hmm. ñaar yi ñu koy def ñëpp di jëpp ne ko daal ba ñu tuuti nga kii ko. mu takk ne ko dama koy far téye. waaw ah, kay ah wala gis nga ko ba